waaw di teewlu xibaaru Bambouck dal jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. préfet bu nekk fële ca Kaolack daal dina gàntal bëgg-bëgg yi nga xam ne taskatu xabaar yi nekkee ci gox boobu amoon nañ ko ngir amal ab doxu ñaxtu ngir ñaawlu teg loxo bi nga xam ne moom lañ teg loxo taskatu xabaar boobu di Pape Alé Niang. moom nag euh, préfet bi kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati mooy niñ bindee euh, lettre bi nga xam ne ci lañ def euh, seen bëgg-bëgg ngir amal dox ñaxtu bi moo baaxul moo tax mu daal di koy gàntal loolu nag tax na ñi nga xam ne ñoo bindoon lettre boobu di taskatu xabaar yi daal di àddu du wax ne moom préfet dafa jël ab ndogal boo xam ne yëgalu leen ko te tàgguwu ci waaye ñoom jàpp nañ ne li mu wax tamit teguwul ci dëgg teguwul ci yoon waaye liñ mujj def mooy fexe ba tey ci ngoon gannaaw bañ leen aaye li nga xam ne mooy doxu ñaxtu bi dañoo fas yéene toog jàkkaarloo taskati xabaar yi daal di àddu ci eh, mbir mi. gannaaw ba nga xamee ne eh, kiñ dénk lépp lu jëm ci wàllum eh, defaraat parti bi di Pastef nekk vice président di Birame Souleye Diop kàddu yu ñu yëkkati woon ci wàllum boole yi nga xam ne mu ngi ko boole ay mandat Euh, ki nga xam ne moom lañ dénk ndaw mi jëwriñ juñ dénk wàllu ndaw ñu fii ci Sénégal di Pape Malick Ndour daal dina ci euh, addu moom nag jàpp na ne li nga xam ne Birame Souleye Diop daal dina koy wax wala mu daal di koy def euh, du lu bees du guleet ndax gis na ne ki nga xam ne mooy njaatigeem di leader Pastef bi di Ousmane Sonko moo ko njëkkee ndax ni ki janvier 2022 lañ ko daal di tabboon mu nekk maire Ziguinchor te boobu mu ngi nekkoon député ndax député gi mu ngi waroon jeex ni ki juillet bi ñu weesu moom nag jàpp na ne bu fekkoon ne li muy woote euh, dëgg la te ñàkk boole mandat yooyu nekkoon na lu ko soxal euh, da daan démissionné ci benn bi euh, bañ ko falee li nga xam ne mooy mairie bu Ziguinchor moom nag leneen lim ci àddu mooy gis na ne nemmeeku na tamit ne kii di Ousmane Sonko ak ñi mu àndal kàddu yu ñu yëkkati yëpp yu daanu ci sare la ndax amul lenn loo xam ne ñu koy wax mu doon loo xam ne lu dëgg la te li nga xam ne mooy seen kàddu day waroo souvent ak seen jëf. ba tax na mu ngi woo askan bi ñu daal di bàyyi xel bu baax ñoom seen doxalin ndax newul loo xam ne lu askan bi dem xaar la. ñu des si wàllu tàggat yaram ak euh, tweet bi nga xam ne. Euh, njiit tweet bi nga xam ne euh, njiita réew mi daal dina koy def di président Macky Sall gannaaw ba nga xamee ne daal dina jël xabaar bi yee wane ne ki nga xam ne mooy star sénégalaise bi di Sadio Mané dafa forfait ci euh, coupe du monde bi ñu jëm moom nag euh, li mu bind ci base euh, mooy du dara lu di ko ñaax di ko la tamit waaye tamit di ko encouragé ngir que mu gën a dëgër waaye mu gën a waaj xam ne rek lii lu waroon a am lu am la te na noppale ko ndax santé moo war a jiitu lépp te am na yaakaar ne bu dellusee dina gën a dëgër waaye tamit dina gën a nekk fi nga xam ne fa la ko équipe bi soxlaa waa tamit club bi nga xam ne fa la nekk fa lañ ko soxlaa